wa man awlada ku jural amatan jébbeef fa laxoo ñal na ko ay yestam ci xam bu bànneexu min xaaj moom fi xayaa ci ci dundam nga wattuuxu taqu te dee fi ko goreel min rasi maalihi mu tukkee ci léppi alalam ba'da mamaatihi ci gannaaw faatoom nga nee na boo xas ci sam jaam bu jigéen doom ate baa ngi nii mooy léegi rek sañ nga cee bànneexu bànneexu góor ak jigéen ni góor di bànneexoo jigéen ni soxnaam mën na ko ci jébbiram boobu nga xam ne xas na am ak moom doom waaye nag bis bu faatoo moom sang bi rek ñu jekki-jekki daal ne jàmbu jigéen bi kat umbu wala bi kat gore na daal gore fa saasa moom bu amoon ni bor itam kenn du ko jëmee ci boree baa dara moom buy faatu moom sang bi rek jébbiram boobu am mu amalan doom daal di gore kon atte baa ngoo ko walaa yëjoosu du dagal it bay wuxaa ak jaayam wala lëxoo di di ko ñeel it xale xaawar ko xidmatun benn liggéey bu am solo maanaam koo xës amal doom ci say jaamu jigéen jeex na doo ko sañ a jaayati doo ko sañ a liggéeyloo liggéey bu metti wala xalatu du caagin wutloo ko njariñ xal la mooy nga ne ko demal di passion di ma yët ba demal di jaay bitik di ma yët ba demal di bindaan di ma di ma yët yooyu mooy xal la loolu doo ko sañ a def loo wala xoo ñeel na ko nag daalika loolee xiwali di xaa ci doomam ja min xëy di yi bàyyi ko ci kudul moom bu fekkee garaaw bi nga amee moom doom nag ba mu nekk sa umbu wala daa amaat yeneen doom joo xam ne yow juróo ko doom joojee mu amaat juróo ko la wax ne moom bu la neexee liggéeyloo ko bu la neexee wutloo ji ko njariñ di ko demal di jaay yi lay jox nga di ma yët ak yu demee noonu waxuma moom nag bi ma si ci umbi yi nekk na ci wàccukaay yaayam te xit ki ca gore ga yoo tax ko def la ko goreel bi xit ki yaa ci goreem nga loolu baamu la daa wax ne sa jaam bu jigéen bi gannaaw ba nga amee moom doom ba noppi nag bu wëlbatiku amaat yeneen doom joo xam juróo ko kooka moo yaay bi ñoo bokk àtte nga xam ne bu yaay ji goree rek moom itam mu gore te neen la yaay ji moom bis boo génnee àdduna yow mi sang bi rek mooy boo faatoo rek moom mu daal di gore su boobaa na doom jooju bay kuutoon ci yow mu am ko ci gannaaw ba daal di gore ne moom wa kullumaa lépp loo xam ne asxatat rotal na ko mimmaa ci la nga xam ne yoon la bu def na xam ne annahoo nakam wa annahoo nakam wala dun doom la fa yekkoon moom kat umu wala umu wala la bii ca loolee nee na kat duñ bàyyi bu mu jur doom ju ne léegi ñuy jàkkaarloog moom ñu door naa su umu wala la déedéet lépp lu mu jur mu génne ci biiram rek dañ xam ne doom la ju doon tàmbali rek xam doonte aw lumb la woo xam ne ku ci sot ndox mu tàng du du ruy du seey xam ne doom la ju doon tàmbali dañuy jàpp ne kon sa jaabu jigéen boobu xas nga am ak moom doom atte biñu ci waxoon dal ci ñëw wala yan fa du ko jariñ alxas lu dasal dasal mooy du joteeg moom ba ndoxu mën yi war a génn mu génne ko tur ko ci bitti bañ koo bàyyi mu jàll wala mu tudd dasal loolu du ko jariñ nag isa an karante weddi na wala daxaa doomam ja wa aqarra te mu saxal bil watt yi ca laal nga maanaam moom dañ ko ne yow day sa jaamu jigéen bii am na doom kon nag yaa ko jur tey soppiku na umbu walat mu ne man day weddi wu ma ne daanaa joteeg moom waaye su ma daa joteeg moom ba man yu nar a génn daa koy génne tur ko ci bitti daw mu bàyyi man yu ma jàll kon nag xam naa ne doom ji juruma ko ne loolu yoon du ko nangu yoon day jàpp ne man yu mën na ko rëcc jàll du rek dana mën saa yu nekk noonu mu wax buy bëgg génn mu tur ko ci bitti bàyyi du ca dara mën naa jàll te du ko yëg kon nañu jàpp ne rek loolu lay juddu doom la tey fa nit daxaande woote na istibraan ak laablu lam yata goo xam ne laalut ba joti wut ak moom ba daxoo ci gannaawam lam yal xaq kon di yëg bi ci moom maa la nga xam ne jaa dikk na min wala din ci doom nee na bu fekkee daa wax ne man day suma jàmbu jigéen bii seetlu woon naa ko ba mu wóor mu ne ëmbut ndax bàyyi woon naa ko ba mu ci deret benn yoon baalu ko ba xam ne moom mi ëmbut te gannaaw bi jotiwaat moo feeg moom dara kon nag doom ji mu jur bàyyi ko wul ci man te it kon nekkul ummu walat subaa ñu ne ko wax nga dëgg ndax ndegam moom nee na wóorlu woon na ko ba ëmbut deful dara te gannaaw bi jotiwaat ak moom ba noppi nag mu am doom man na ne kon feneen la ko jëlee ci njaaloom ba dara waaye man juruma ko kon jëbéer bi nekkul ummu walat boobaay itam ñu nag la mu wax wala yejosu dagan it xuman goreelu koo xam ne axaata peeg na wër na adday nu bor bi maali yi ci alalam nee na nag koo xam ne daa bari bor ba nga xamee ne su fayee da ci yem képp mbaa du matal sax kooku kat du sañ a goreel ab jaam su ko amee ndax dañuy jàpp ne kooku mi bu goreel ci dëgg-dëgg moomu ko ndax danga moom daa yoree bor ba su fayee du matal mbaa da ci yem képp turu moom it ngaa fa nekk waaye ci dëgg-dëgg moomu ko kon kooku du sañ a goreel ab jaam wa man koo xam ne ataqa goreel na ba'da habdihi leen ni ab jaamam ustu timma kon motleef ko xale yi war ko su waxee sab jaam ne ko goreel naa si leen ni ki nga ne ko goreel naa sab kaar ku la defoon ñeenti xaaj benn ba wala goreel naa sab ceer ku la defoon ñetti xaaj benn ba nga goreel naa sa genn wàll ko la defal ñaari xaaj genn wàll ga yëpp yoon day wax ne lépp gore na benn yoon mooy yoon da koy mottali moom ngor ga mot du ca bàyyi noonu nga wax nga ne ko waaw bu ko moomul moom dong nag mu ne wa in kaana dem nekk na li xëy yi ñal ku dul moom ma xaw ànd ak moom fii ci jàmba sharikatun ak bokkaale xaw yi ma kon xaymaaf xalihi ci moom nasibu sharikihi cërub aji bokkaaleem ja bi xiimatihi ci xaymaam yow ma yuqaamu ca bis ba def na ko taxawal xalihi ci moom mu ne bu fekkee da ngaa wax ab jaam ne ko goreel naa sa nangam te fekk moomu ko yow dong nit nga ne ko goreel naa sa genn wàll fekk nga bokkoo kenn bis bu ko yoon di atte day seet xay may jaam ba nu mu toll ñu ne nangam ñu ne la kon nag léegi ki nga ko bokkaloon moom remboursé ko wàllam ci jaam bi te jaam bi lépp gore ndax ne ko am nga alal moom te yow boo moomoon lépp lépp dañ koy goreel te it moomoo lépp waaye mën ngaa remboursé ki nga ko bokkal wàllam yow dalay forcé nga remboursé kooku wàllam te jaam bi lépp gore fa indam yow jadd ndem fekkee fut la xoo ñeel ko maalum alal baqi kon des sax mu sharik ci cërub aji bokkaale ja raqiqan di ab jaam bu fekkee nag goreel nga sa genn wàll ci misaal dina la remboursé kee ndax jaam bi lépp gore far amu alal joo ko mën a remboursé kon dañu xam ne yàllaa ko dogal bu ko defee sëg cër moom ci jaam ba sa wàll ci jaam bu gore na kenn am ak wàllam mu téye ko moom nga xam nga xam ne jaam bi bis bi moo moom boppam bis ba ca des kookee moom genn wàll moo ko moom wa man mattala ko mettital bi xabdihi ci ab jaamam muslatan ak mettital bayinatan guy aji bir min xataxi jaari xat ci dagg ab cër wana yi ak lu mel ne moom xata xamu gore xale yi waa ko ab jaam ka li nga koy moom moom suñu koo def lu metti lu ñaaw soo ko mettitalee ni ki dagg ab loxo mbaa ab tànkam mbaa nga tàpp ko mbaa nga gubbi ko dagg waa yàlla dagg ab sawkaayam ak waa ak waa yàlla yi demee noonu lu mu ci mën doon nañu jàpp ne kon li nga ko def waroo ko woon a def yoon daal di wax ne jaam bi gore na jaam bi gore na te doo ko sañ a bañ wa man malaka ku moom abawayhi ñaari waajuram aw aharan wala kenn min waladihi ci ay doomam aw waladi waladihi wala doomi doomam aw waladi banaatihi wala doomi ay doomi jigéenam aw jaddahu wala maamu mu góor aw jaddatahu wala maamu mu jigéen aw axaahu wala mbokkam ma li ummi ñeel wàllu ndey aw li abdi wala ñeel wàllu baay aw li xumaa wala ñeel leen ñoom ñaar ñëpp jamihan boole seen xataxa kon mu gore xale yi war ko foofu la daanoo si daam ñoo xam ne moom mënu leen a moom mukk ñuy say jaam bokk na ci sa ñaari waajur sa ñaari waajur moom tey jii boo ci jëndoon kenn mbaa ñu fayal ko bor fekk mu dib jaam day daal gore fa saasa boo boo fekkoon sa waajur itam muy ab jaam nga jënd ko it fi saasa mu daal di gore kenn ci say doom noonu la kenn ci say sët noonu la moo xam sët bàyyi ko doom bu góor la moo xam sët bàyyi ko doom bu jigéen sa maam ji góor noonu la sa maam mu jigéen noonu la sa mbokk mi nga bokkoon ndey ak baay mbaa baay dong mbaa yaay dong noonu la ñoo ñëpp rek koo ci moom daal di gore fa saasa wa man antaqa ku goreel xaamil aji ëmb kaana ko nekk jëniinu xaa mbeewuram ma xurran di gor ma xaa ànd ak moom soo goreelee jàmm bu jigéen fekk mu ëmb day jàpp ne lu mu ëmbaale itam gore na nga xam ne kon day gore la mu ëmb itam gore wala yow taxu deful goreel fi riqaabi ca baat yi alwaajibati aji war man ka nga xam ne fii nekk na ci moom max nan max naa mi tis xiñ ci goreel bi tadbiirin ci gannaawal aw kitaabat wala njotoo aw xëyrihima wala dul ñoom ñaar nee na jaam yi nga xam ne yoon moo la ko goreel lool jaam yi nga xam ne ñoon yoon moo ne la goreelal ni ki da ngaa rey te kafaar rey am na goreel jaam kooku moom nee na da ngay goreel jaam bu sotti waaye jaam boo xam laal na ci ngor moo xam dañ koo gannaawal moo xam daa tàmbalee njotoo mbaa leneen ni ki day umul wala yëpp doo ko mën a goreel mbaa ko goreel jëm ci ab àpp mbaa ko goreel lennam yëpp rek doo ci mën a goreel kenn ci loo xam yoon moo ne la goreelal déedéet da ngay goreel jaam bu sotti kay wala ahma du ci ak yoonu aji gumba bu la yoon ne ndax war ngaa goreel da ngay goreel jàmm bu set wecc ci sikk waaye ku gumba waaw bu gumba doo ko mën a goreel ba goreel rek doy wala ak taxul yéen di jaagin aji dog ab loxo doo mën a goreel koo xam ne loxo ba daa dagg ba tànk ba daa dagg ba si ak lu mel ne moom mooy mbiróog moom ba tey doo ko mën wala man du caagin koo xam ne ala xëyri islam yi nekk na ci lu dul islam bu la yoon ne war ngaa goreel jaam da ngay goreel ku nekk julit jaam bu nekk julit waaye boo goreelee bu nekk ab yéefar ba tey du doy wala yusuf dagan it xussa bi goreelu gone waaw maanaam gone ci boppam mënta goreel mu kàllaf rek mën a goreel bu fekkoon ne tey gone gi doon na ab jaam ci waajuram ci misaal du tax mën koo goreel wala mu wallaa du ca jël ku njirif xale yi ci moom wala mu wallaa xale yi nag boo yeexee max naam rëcc la ndax dañoo jublu rek as safiihu ab noosóor boo xam ne boo amee alal da koy yàq xam nga loolu bu dee ci yoon kenn du ko bàyyi alalam dañ koy boole koo xam ne moo koy topp sol alalam bu yor alal yàq ko donte bari nay at ñeent fukki at mbaa juróom fukki it bu dee ci yoon képp koo xam ne amul sañ-sañu soppandiku ci alalam du am sañ-sañu goreel maanaam du am sañ-sañu génne alal déedéet dañ koy defal rek wal walaa u kilifteef ga li man ñal na ka nga xam ne tàntaq goreel na kilifteef daa xaw a mel ne jege ñaari askan nga xam ne boo goreelee ab jaam yaa moom kilifteef ga loolu nag takk-takk la boo xam ne day sar képp koo xam ne moo goreel rek moo moom kilifteef ga nga xam ne kilifteef sax bokk na ci lii taxa doon koo xam ne yaa ko goreel moom kilifteef ga bu génnee àdduna te amul kenn ku ko war a doon yow yaa koy doon bu fekkee itam buñ doonee day des yaay jël des wa ba tey itam nag buñ nee ku goreel yaa moom kilifteef ga ba tey kookee nga goreel kum goreelaat ba tey yow yaay moom kilifteef ga ak kum jur itam yaay moom kilifteefam wala yejuusu du dagan bay xuxoo ak jaayam wala xibatoo du jaageema ak mayeem kilifteef moom lu ñu fonk la dañ ko jàppee nag jege ñaale nga xam ne di su ko jaay di su ko maye yàllaa ko dogal rek hadis ba dane al walaa'u luxmatun ka luxmatin nasabi laa yubaaxu wala yuhabu wa man aataqa ku goreelal xabdan ab jaam an rajulin walis waay fal walaaw kilifteef ka di rajulin ñel na waaja boo nee nit goreelal naa la jaam bii muy góor muy jigéen kon mooy moom kilifteefu kookee nga ko goreelal waaye yow doo ko moom wala yëkkoon du nekk al walaaw kilifteef ga li man ñel ka nga xam ne aslama tuub na xalaa yeddahi ci yaari loxoom kuy tuub bëgg a dugg ci lislaam daal di fekk as gor soo xam ne jullit la mu ne ko man day damay tuub te dama bëgg a tuubee ci yow mooy nga seere ma ma feeñal saa lislaam ci yow du tax na ñu wax kookee ne ko ndegam say loxo la tuube mooy ci yow la feeñal lislaamam rek yaa moom kilifteefam déedéet kooku kilifteefam jullit ñépp ko moom ndax ni mu ko feeñale ci yow nga di ab jullit di gor mënoon na koo feeñale ci keneen kon nag kilifteefum jullit ñëpp ko moom wa wala uma kilifteefum la nga xam ne en taqat goreel na ko almaratu jigéen laxaa ñeel na jigéen ja wa wala uma ak kilifteefum ka nga xam ne yu jaru def na ko ñoddee min wala din ci doom aw xabdin wala ab jaam en taqat hu bopp goreel na ko dafa wax ne jigéen moom num goreel boppam rek la mën a moom kilifteef ga mbaa boog mu goreel kooka am doom mbaa mu goreel kooka goreelaat kon daal jigéen moom num goreel moom ci boppam mbaa mu goreel kooka jur mbaa mu joreel mbaa mu goreel kooka goreelaat waaw yooyu rek la mën a moom ci kilifteef moo tax mu teg ci wala tarisu waaye du doon nag mbaa la nga xam ne entaqa goreel na ko xayruha ku dul moom min abin ci bàyyi aw yëbbunin wala doom bu góor aw sawjin wala jëkkër aw xayri wala kurul moom jigéen nag moom mënta doon kilifteef góor rekk ko man mel na yow Modou Diagne nga tudd boo amoon jigéen joo xam ne Seyna bu Diagne nga tudd ngeen bokk ndey ak bàyyi seen bàyyi génn àdduna nag bàyyi fi kilifteef koy it yow dong yaay moom kilifteef ga waaye Seyna bu Diagne moomee du ca moom dara Seyna bu Diagne moom ni ñu ko waxee léegi lu mu goreelal boppam mbaa mu goreel lam goreeloon am doom mbaa mu goreel kam goreeloon goreelaat loolu rek la mën a doon waaye du mën a doon kilifteef ci baayam mbaa doom bu góoram mbaa jëkkëram mbaa keneen wa miraasu saibati donop aji boy ja li jamaaxatil muslimina ñel na mbooloom julit ña daa waxin woo xam ne njëkk lislaam dañ ko daan wax di ci jubloo goreel ab jaam ba lislaam ñëwee ne mu sib ko ne bu ko kenn waxati te loolu mooy baatu sayyaba boyal na kii muy ab jaam naa ko say yëttu ko boyal naa la jublu ci goreel naa la wala mu naa ko anta mu say yëbun mel noonu daal wax ko jublu sa goreel dañ koo sib dañ caa boole na ku ko wax ñu xañ la kilifteef ga maanaam kuy goreel sab jaam wax baat boobu rek ñu far la xañ kilifteef ga daal koy moomale mboolem jullit ñi nga xam ne kookee nga wax loolee ba mu gore su faatoon te amul ko war a doon it tax yow nga doon ko ndax baat boobu nga jëfandikoo ci ba nga koy goreel wala walaaw kilifteef ga lil aqxadi ñeel na ko gën a jege min xasabatil mayiti ci way asabaali néew ba al awali ba aji jëkk nee na kilifteef nag moom niñ koy doone wuti naag ni ñu doone alali kese ndax moom ka gën a jege rek mooy moom lépp ka nga xam ne moo ko féeti suuf du am dara ñu jox la ci misaal fa in taraka nem bàyyi na ib nay ni ñaari doom ñu góor fa wari saata ñu doon wala am awlan kilifteefu mbaa yàlla li abihima ñeel seen bàyyi ñoom ñaar su ma maar toog faatu ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar watarakate mu bàyyi bani na ay doomi góor rajaxa kon dellu alwalaaw kilifteef ga ilaa axi jëm ci mbokkam ma duuna bani ci lulu doomam yaa misaal mi mooy lu mel ne góor faatu bàyyi fi kilifteef ñaari doomam ñu góor doon kilifteef ga ñaar ñooñee nag bu kenn ka faatu woon bàyyi fi ay doom yu góor itam duñ wax ne kookee faatu doom yu góoram yi ñoo war a doon wàllu seen bàyyi ci kilifteef gi déedéet kee nga xam ne mooy doom rek tey bàyyi ci ñoom rek mooy moom léppi kilifteef ga xam nga loolu nag wuti naag bu doon alal bu doon alal moom tey ki seen bàyyi bàyyi fi kër ñoom ñaari doom ñu góor ñi ñu doon kër ga ñaar ñooñee ku ci faatu rek sa njaboot ñooy daal di moom sa wàll ci kër ga waaye gis nga fii ci kilifteef gi moom ñaar doom ñu góor ñi nga xam ñooy cosaan ci doon ku ci faatu ka fa des rek mooy moom lépp kilifteef ga waaye njabootu ka nga xam ne moo faatu duñ moom dara ci kilifteef ga wa in maata ndem faatu na waahidun kenn wa tarakate mu bàyyi wala dan doom wa maatate faatu axoo mbokkam wa tarakate mu bàyyi wala day ñaari doom kon walaaw kon kilifteef ga bay na salaasa ji nekk na diggante ñett ña atlaasan mbir mu muy ay sulus ba tey ni ñuy doon ne kilifteef wóote naag bu doon alali kese ndax ñoom ñay doon duñ seet ne rek kii daal waajuram yi ñu doon moo moomoon nangam ci kilifteef gi ba loolu lépp moo ko war a moom déedéet ñoom ñi nga xam ne ñoo war a doon kilifteef gi te yemoo daraja dañ leen koy séddale na seeni bopp tollu rek ñu yemoo ca kepp-kepp ni ko misaale su fekkoon ni ñaari doom ñu góor ñi nga waxan léegi ñoom ñëpp bokk faatu kenn ka nag bàyyi benn doom bu góor kenn ka bàyyi ñaari doom ñu góor du tax ñu wax ne ki bàyyi benn doom bu góor na benn doom bu góor ba taxaw taxawaay baayam daal di moom genn wàllu kilifteef gi ñaar ñi nga xam ne nag ñoom la seen bàyyi bàyyi ñoom dañ seddoo wàllu seen bàyyi déedéet kilifteef gépp dañ koy jàpp rek ñetti xaaj ñoom ñoom ñetti sët yi kenn ku nekk moom ca benn xaaj xam nga bu fekkoon ne tey kër la ñaar ñi ko séq bu ñu faatoo kee bàyyi benn doom kee bàyyi ñaari doom ki bàyyi benn doom benn doomam mooy moom genn wàllu kër ga ka bàyyi ñaari doom ñaari doomam séq wàllu seen bàyyi woowee waaye mel ne bu kooka faatoon muy kookee ñu lif te amul ko war a doon dañuy defaral ñetti xaaj ñoom doom yi kenn ku ne tegg benn waaye duñu wax ne ki nga xam ne baayam mel moom dong la bàyyi moo war a moom genn wàllu alal ji genn wàll gee ñaar ñee bokk bàyyi daal di koy moom déedéet baabu li ab buntu la fi fati ci dab dab baat wolof la daañu leeral lum doon wal xibati ak maye was sadaxati ak saraxe wal xubusi ak xubusle wal rëxani ak tayle wal xaariyati ak able wal wadixati ak ndénkaan wal luqatati ak por wal xasbi ak daan jël yooyu la bëggaan di ci bunt bi wa innama shufhat naka dab fil mushaahi nekk na ci xaaj bu siiw ba nga tuddee xaaj bu siiw rek waaye mooy suuf ak luy taq ci suuf maanaam suuf ak tabax ak garab yooyu nga xam mënuñoo tàggu suuf ci la ñuy dabe dab nag mooy boo bokkee kenn suuf mbaa tabax mbaa garab te séddoo wuleen woon mu jekki-jekki jaay wàllam yoon da lay defal ak jàppandal ci nga dem ci nga dem dab ka nga xam ne moo jënd wàllam woowee daal koy delloo njëgg yow nag boo dikkee moom lépp daal di koy delloo kem njëgg nga xam ne moom la jënde woon boo dikkee moom lépp ak jàppandal la waaye nañ koy def ci suuf rek ak li tax ci suuf mel ni tabax ak garab lu bokkute loolu rek mënu ko mel ne tey bu ngeen bokkoon oto wala nag wala am xar wala bëy yi demee noonu mu jekki-jekki jaay wàllam it doo mën lu may bokk ak ka nga xam ne léegi moom la jaay wàllam ngeen seet nu ngeen def rek waaye doo sañe doog ci ne ko kooku faaw daal di remboursé moom lépp wala suuf xatu di dab fii maa di nekk ci loo xam ne xaddu xusi ma séddaleef na ko ba noppi loo xam ne yéen a ko bokkoon waaye xas nañ ko séddale kenn ku ne am wàllam nag kon ku jaay sañ naa jaay kenn ko du sañ a dabi ka jënd naa ko dama li remboursé déedéet ndax xas nañ ko séddoo ba noppi wala li jaayum du jaageenu ñeel dëkkandoo wax ji gën a wër ci yoonu maal daal mooy boo dëkkaaleeg nit mu jaay yëfam mu jaay suufam mbaa tabaxam mbaa garabam du tax nga wax ne diw mi jaay kat sama dëkkandoo la sañ na maa dabi ki jënd lim jaay déedéet dëkkandoo waa ji doon sa dëkkandoo kese du tax nga sañ a dabi ka jënd lam jaay naa ko dama lay remboursé wala fii tarixin du jaageenu ci aw yoon wala xar sati daarin du jaageen atub kër xaddu xosimat boobu séddaleef na bu yootu xaa néegam ya bu fekkee da ngeen bokkoon kër ñu seetli kër ga ba seetlee néeg ya mu des rek yoon wa ñu aw jëm ci kër ga ak ëtt ba nga xam ne mooy ëttu kër ga képp lañ seetlewut kon ku jaay ci yéen ñaar rek sañ naa jaay ka ca des du wax ne ah ba tey kat noo bokk yoon yi mbaa noo bokk ëtt bi ba damay dabi ka jënd lim jaay déedéet wala fii faxli naxalin du jaagéenu ci kuyal ay tàndarma aw biirin wala ab teen isa xusimat ndéem seddaleef na an naxlu tàndarma ya awil ard wala suuf sa ba tey bu ngeen bokkee toolu tàndarma ñu seddale suuf sa séddale garab yi tàndarma ya mu des nag garab gu góor goo xam ne neexuta séddale ku soxlaa góoral rek ñoo wut ca dem góoral wala mu des teen boo xam ne mënees ko séddale ku soxlaa suuxal rek soxlaa root rek ñëw root lu mel noonu nag moom ku jaay rek sañ naa jaay ka ca des du lay too teen bañ séddoowut mbaa garab gu góor gañ séddoowut ba tax mu naa damay dabi loolee mu jaay déedéet wala suuf xata di dab ilaa fi ardi muy nekk ci suuf wa maag la nga xam ne yet tasil dana jokk bi haa ci suuf minal binaay ci tabax wa shajari ak garab nee na nag ni ma ko waxee woon léegi ci njëlbeenu bunt bi la nga sañ a dab mooy day fekk la ngeen bokkoon di suuf mbaa lu cay taq muy tabax ak garab loola ka nga bokkal bu jekkee jekki jaay te fekk séddoo leen woon loolee mën ngaa dabi kam jaay delloo ko njëgg ci ki moom lépp waaye lu bokk ci loolu doo ko ci man wala suuf xata déet dab lil xaadiri ñeel aji teew baax da sanat ci gannaaw at wal xaay bu aji fàddu ja nag moom xalaa sufxati yi nekk na ci dabam wa in taalat ak doonte yàggoon na xaybatuhu tukkeem ba daa wax ne nag koo xam ne ki mbokkal ba muy jaay ma nga fa waxu ca dara ne pat lu toll ne at gannaaw bu ci bëggee wax itam kenn du ko déglu ngay wax ne ko léegi daf wees na bu fekkoon ne moom dafaa nekkutoon nag moom lu yàgg-yàgg saa yu ñëwee fekk ka mbokkalan jaay rek mu daal di mën a dab ko jënd daal di koy remboursé njëgg daal di moom lépp wax mu dëttu chef yi gàddug la ñu dab xalal mustar yi war na aji jënd ja daa wax ne nag bu fekkee ne ki nga bokkaloon daa jaay wàllam te fekk sédduwu leen woon ñu wax ne sañ ngaa dab yi ko jënd remboursé ko dikk moom lépp soo ko dabee ba remboursé ko nag dikk fekk fara wàllu woowee lakk dara dara wala dara xew ca su neexee delluwaat ci ka jëndoon ne ko yow kat daboon naa la waaye delloo ma sama njëg ndax lee ma daboon kat fekk naa mu lakk waaw kon responsabilité ba aj jënd coojee moo koy gàddu yow mi nga xam ne yaa dab boo dabee ba noppi di fekk far loola musiba am ca am nga sañ-sañut daal delluwaat nanguwaat sa njëg daal di moomale waaji lam jëndoon rek ne ko yow daal sa yëfa laatu waaye man dabatuma wa yuqafu def na taxawal ay chef yu aji dab ja fa imma axasa benn mu jàpp aw tarak wala mu bàyyi bu ñaar bokkee daal suuf mbaa ay garab mbaa tabax kenn ka wëlbatiku jaay la wàllam te fekk ñoom séddowuñ ko woon kon xam nga ñaar ñoo ñu seqoon kenn ka am na sañ-sañu ñëw dab la ne la yow ko li nga jënd sañ naa laa dab dama lay dab kooku na la wax ne bu fekkee ñëwut cee waxu la dara man ngaa dem ci moom ne ko ah yow kat sa waa ji nga bokkaloon man la jaay wàllam te xam naa ne am nga sañ-sañu dab ma dama bëgg nag loo ci def rek nga wax ma ko bu fekkee da nga may dab ma xam ko bu fekkee da ngay bàyyi noonu ma bokk yow it ba tey baax na loolu sañ nga ko wala tuuxa bu deful maye ashufatu dab wala tubaaxutu defu ko jaay wa tuq sa mu def na ko seddale rek benn surakaay diggante way bokkaale di xasul an si bàyyi ci kem cër ya xam nga dab moom ak jàpp ndal la ku la yoon may rek kon nag boo amee sañ-sañ ba da nga koy def rek mbaa nga bàyyi waaye doo sañ a wax kenn ne ko kaay ma jaay la ak dab gi yow nga dem dabi wala kaay ma may la ko déedéet moom kay ngay def rek mbaa nga bàyyi bu fekkee nag ña bokkan loola dañoo limu doon ñaar dong dañoo man ñett mbaa ñeent kon bu ci amee kenn ku jaay wàllam ba ñu dab ka jënd ba delloo si wàllam bu ñu séddoo wàllam woowee ndegam ñoom ndegam ñoom yëmawuñu woon ci moomeel ga kon bu ñu andee wàllu waa jooje ba di ko séddee itam dañ ciy ëpplante rek dinañ ëpplante woon ci moom jëmm ja ci misaal ñett buñ bokkoon kër kenn ka moom genn wàll ga kenn ka moom sudus ba juróom-benneelu kër ga kenn ka moom ceer ba mel ne daal boo defoon kër ga juróom benn xaaj kenn ki moomam ñett ña muy genn wàll kenn ka moom ñaar ña muy sulus di ceer kenn ka moom benn ba muy ab sudus ak juróom benneel bu fekkoon ne ka moom ceer ba muy boo ko defoon juróom benn xaaj ñaari xaaje bu fekkoon ne kooka moo jaay ñaari xaaj yam ca moom ñaar ña fa des daal di dab ka jënd bu ñu seddoo kon wàll woowee dañuy def wàll wa ñeenti xaaj ki moomoon genn wàllu kër gi daal di moom ñetti kaar ña ka moomoon sud kër ga jël benn kaar ba ndax boo seetloo ñoom ñi nga xam ne ñoo des jaayuñu seen wàll li ñu yor ci kër ga mooy ñeenti xaaj te ñeenti xaaj yi ki moom genn wàll gi moom moom ñett ña kee itam moom benn ba kon nag buñ dabee wàll wooyu bu andi ko dañ koy def ñeenti xaaj seddoo ko noona ki moomoon genn wàllu kër gi moom ñetti kaar ya te moomoon sud sub kër ga ci cosaan moom benn xaaj ci ñeent ñooñu nu far tudd baat yi ci ni ko saraa bi andee fa isa kaanat daarun mushtarakatan bayna thalathatin لواحد نصفها ولآخر ثلثها وللثالث سدسها فباع صاحب الثلث ثلثه لغير الشركاء فإن الثلث يقسم بين الشريكين أرباعا لصاحب النصف ثلاثة أرباعه ولصاحب السدس الربع الباقي ولا تتم بمت xibatun maye wala sadaqatun du caageenu saraxe wala xubusun du caageenu xubus de illa bil xiyaasati ndara ci làq làq mooy jël daa wax ne buñ la mayee mbaa ñu sarax la mbaa ñu xubus le la lay tax maye ga mbaa saraxe ga mbaa xubus le ga wér mooy nga jël ko waaye li fekk jëlagoo ko rek dara sotteegu ca muy maye muy saraxe muy xubus le ñoo ci yam buñ ko yéexee jëli ba gàllankoor am jeex na des ko mën a jëleeti gàllankoor nag mën naa doon faatu mën naa doon bari bor bañ war a jël alalam séddale ko borom bor ya mën naa doon ak ndof gu sar mën naa nekk tawat tawati faatu joo xam ne daal yaakaaratuñ ca ak wér yooyu yëpp xose am rek te jël suñu woon kenn ci yett yooyu le kon loola yàqu na xam ne bu dee ca faatu ko ni mu ko waxee dañ koy daldi miraas bokk ca lañu doon su dee ca bor yu bari ya ñu faye ko bor ya alxubusu ak alwaqfu benn lañu loolu lu ñu taamoo taamu la yonante bi ak saxaaba yi ak gaa yu baax yi daañu ko def ndax day doon loo xam ne tuyaaba ja dalay fekk fa nga nekk ca alaxira xubuus le mbaa waqaf le man ngaa wax ne mooy rek loo xam ne yaa ko moom manees na koo jariñoo nga yëkkati njariñ la moomale yàlla bu la neexee boole ci wax na nga bëgg ñu ko koy doxale bu la neexee itam bàyyi àttekat ba mbaa ilimaan ja ña yore mbir ma seet na nga xam ne moo ci gën ñu ko cay doxale loolu moo tudd xobusle mbaa waqafle mel na nga am pàkk joxe ko la neexee leeral ne pàkk bi dama koy joxe bëgg ñu tabax ca jàkka la neexee sax def jàkka ja bu amee man-man ba mbaa damaa bëgg ñu def ko daara mbaa damaa bëgg ñu néew doole di fa féete mbaa sax da naa bëgg ñu def ko ab hôpital boo ko mënee sax nga tabax jëmmi hôpital baag boolem jumtukaay yi nga xam moom lañ cay jëriñoo ak lu mel ne jënd ay